kum ami internet salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Sénégal Buzz waaye di mastawu sama mbokku acteurs yi nga xamante ni ñoo ñàkk seen frère ñi ñàkk seen doom ñi ñàkk aussi tamit koo xamante ni kenn la woon ci ñoom muy Momo Camara bu Virginie di ko jaale l'ami fa de Mbarodi ak képp koo xamante ni acteur la waaye ma seet ci koo xamante ni ñoom ñaar ñoo bokkoon benn projet euh, mu doonoon koo xamante ni euh, foo leen masaan a gis rek da nga gis ki nga ni moo di Momo euh, gannaaw ni ñu ko defee ak yenn moo di Matar bu Virginie Matar maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar di la bëgg bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di ziar ñëpp di masawu euh, tous les acteurs ak euh, képp ki nga xam ne yaa ngi yaa ngi yëngu ci cinéma maa ngi lay masawu. Euh, mais Matar nga doon koo xamante ni peut-être moom moo li ko sénégalais yi di xam-xam-xam yéen ñi nga xamante ni yéen a bokkoon projet doon kan kan moo doonoon ki nga xamante ni moo di moom moo ci yéen. waaw moom dafa nekkoon nit ku nit ku baax. waaw nit ku simple nit ku présent nit koo xam ni foo ko woo foo ko soxla dalay wuyu loo ko wax mu ne la waaw mu nekkoon nit ku baax vraiment ñàkk nañ ñàkk nañ frère quoi franchement. mais ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xëy ba ba ngoon gi di dugg si euh, ñu annoncé leen koo xamante ni dafa cher ci yenn koo xamante ni euh, li may wax ñun acteurs yi ay frère lañu ay sœur lañu euh, bi nga yëgee nouvelle bi naka nga ko dundee. en tant qu'un waaw métti woon na métti woon na trop parce que man fii ma toog nii laa ko yëgee métti woon na lool mu nekkoon loo xam ne daf ñu bett quoi bett nañu ñun ñëpp bett nañu képp kuy acteur bett na la waaw mu nekk voilà quoi benn affaire bu yéemee affaire bu garaaw waaw voilà quoi mooy loolu. mais xam nga tey euh, dafa dafa am loo xamante ni. doomu aadama yi xëy na peut-être umpale woon nañ ko ci ñoom ci moom mais yéen ñi nga xamante ni yéen doon bokk euh, plateau de tournage euh, mën ngeen ñu expliquer tuuti ci viwu Momo maanaam euh, parce que dégg nañ ay témoignages yu ndi jaayam yu yu yaayam def ay xaritam yu ñu def maanaam nit la koo xamante ni spirituellement dafa dafa selloon. dëgg la loolu moom je le dis haut dafa nekkoon nit ku sell nit koo xam ne waxtu julli du ko raw. waaw mu nekkoon nit bu spirituel waaw ku baax koo xam ni maanaam vraiment je peux dire que ni sénégalais yi on a perdu quoi parce que nit ku baax la woon nit ku sell nit ku fonk ay nit de plus fonk ay waajuram waaw ni mu nekkoon nit koo xam ni jullit na waaw gémmiñ gi lu baax rek la si daan génnee ndeysaan voilà quoi. Euh, mais ci côté euh, rôle bi mu doon joué ci ci ci série bi euh, ñu gis ni en général euh, bon les acteurs wala nit koo xamante ni intellectuel nga rek euh, maanaam ci Sénégal fii sa doole demeewul noonu mais moom muy dund loolu boole ko jikko génie bi nga xamante ni moom la yoroon ci film bi boole ko xel mu dal mi ak xel mu sell mi nga xamante ni moom la yoroon ak dal gi sénégalais yépp loolu lañ ko seedeel maanaam ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo dëkk ak moom. dëgg la loolu moom maanaam dafa nekk loo xam ni moom la wane. waaw moom lañ gis ci moom daal ndax Sénégal moom li nga mën a wane rek loolu lañ mën a gis te loolu la ñuy wax loolu la wane woon loolu moo nekkoon jikkoom waaw loolu maanaam tey gi dal gi ak n'importe quelle circonstance dangay nga gis dina fa tey dafa dal voilà mu nekkoon benn benn benn jikko boo xam ni man sax dama ko doon roy ci moom parce que amitié moo demee noonu da ngay mën di jàng ci sa morom muy jàng ci yow jàng naa ci moom ay jikko yoo xam ni mënuma ko sax wax parce que nekkoon na nit ku tey nit ku baax nit ku patient nit koo xam ni dafa présent loo soxla boo ko waxee dana naan waaw même su fekkee ni mënu ko dina jéem a xool nan loxoy koy defee. mais bi ngeen bi ngeen bi ngeen demee euh, ànd ak mboom gunge ko ci këram gu mujj euh, bi ngeen ñëwee yow en tant qu'une personne bi nga ñëwee euh, tëdd sa xel ci lan la njëkk a dem. waaw sama xel dafa dem ci ay moments yu bari. waaw dem na ci ay ci ay jikkoom. maanaam ci présidence bi mu bi mu amoon ci man maanaam moment yi doon nekk voilà. mu nekk lu garaaw. mu nekk lu yéeme sax lu garaaw ñu gis ku ci mel ni pot euh, wax ba ba xolam tooy ci ni nga xamante ni euh, noonu la euh, jàppe woon ki nga xamante ni moo di moom moo mu mel ni yéen waa di famille la boo xamante ni àndoo leen di jaayante da ngeen di ànd di waxante dëgg ku tane sa morom daat koy jàppale. effectivement dama jàpp ni loolu mooy équipe sax mhm. mooy di du ma ni équipe sax nu ma ni équipe euh, c'est une famille. Mhm. c'est une famille euh, te famille li nga ci xam mooy jàppalante. Mhm. tu vois da ngay gis ne bu kenn nekkee ci besoin ñëpp lay jàppale comme le cas de Momo. gis nga gars yi dañ ko taxawu te c'était la meilleure des choses quoi. waaw Marodi moom c'est une famille mm-hmm. et ça ça va continuer d'être une famille. Euh, man nga ñu wax ci euh, ci moom moo loo xamante ni peut-être dundu ngeen ko euh, tey ji mu doon loo xamante ni ba ilaa yow mi diin yi doo ko fàtte. waaw moom moom man umpale wóor ni université laa ne mm-hmm. moom dafa dëkkoon Fass mm-hmm. maanaam université ak Fass dañoo jegantoo souvent dama daan dem gàllem et souvent nag la plupart mooy PlayStation lañ fa doon jouer tu vois fa yoroon benn PS4. moom fa lañ nekkoon à tout moment fa laa nekk di di jouer tu vois bañ na ko ba dernièrement daf ma woo téléphone ne ma Matar foo ne ma ne ko man échange bi ni may gàlle mu ne ma booy boo fi nekkatee dee fi jaar tu vois kàddu yooyu sax lañ mujjee lañ mujjee échange ante mu nekk ay kàddu yoo xam ne voilà ko vraiment day ñëwaat ci man quoi en day ñëwaat carrément ci man si tey boo amee looy wax euh, sénégalais yi ak ñi nga xamante ni ñoo di jeune acteurs yi nga xamante ni yéen a yéen yéen a jugandoo juddandoo euh, ci xew-xew yu mel nii parce que gis nañ ni euh, ñenn ci sénégalais yi ci événement yi dañuy profito di di wax naka sudul noonu wala au que ñu ñaanal nit ki nga xamante ni moo génn àdduna dañuy bëgg a topp bës bi ba fàtte ñi nga xamante ni moo di ñaan gi. effectivement loolu moom maanaam jëmul kër quoi jëmul kanam te ñi koy def ci boppam ñoo gën a xam ni li ñuy def baaxul bon su ma ñu bàyyi ko. te correspondant ñi nga xam ne dañuy profité ci ay ci ay euh, ci ay mooru jàmbur c'est pas bon quoi parce que du neex famille te moom bu fi nekkoon tamit du ko neex ci vois donc ñuy wéy ci lu baax waaw parce que àdduna bi jeex na ba pare bro àdduna bi jeex na voilà tu vois da ñëpp sekk jàmm ñëpp am jàmm quoi parce que kuy kuy xëy ñu tàggale sax doo xam kan la da ngay rek ñu tàggale nit ci waa donc nañ ci dal surtout réseaux sociaux yi ñu dal ci ñu tey ci parce que loo ci def rek day am yeneen yu muy jur quoi waaw ñu dal ci tey ci te di ko wax toute la jeunesse ñëpp ñu dal euh, yan kàddu ngay dénk la famille de Mbarodi ou bien la famille de Virginie ou même euh, les acteurs yi nga xamante ni ñoo ŋànk cinéma Sénégal. waaw di leen bëggee bu baax di leen masawu aussi. waaw te di leen wax que ñu rester solidaire ñun ñëpp waaw mbooloo mooy doolee te ñun ñëpp ñun acteurs yëpp benn lañ quoi ku ci nekk li nga bëgg mooy bégal sénégalais yi tu vois euh, ñun ñëpp mën nañoo solidaire considé consolider wu quoi nekk benn masse boo xam ni lu ñu songandoo dorandoo ko dañ koy daanandoo tu waaw di leen bëggee ñoom ñëpp di leen masowu te di leen wax ni on a perdu ñàkk nañu ñàkk nañu suñu xarit suñu doomu ndey mais lan la lan lay def euh, ci koo xamante ni da ngeen a da ngeen a da ngeen a da bokk benn mbir euh, ngeen ñàkk ko ngeen dégg ay waajuram témoignage yi nga xamante ni moom la ñu def ci moom mu leer na ni kii ay waajuram am na fu ñu ko tegoon te ay waajuram amoon nañ ci moom yaakaar mu demee ndaw ni ndeysaan euh, dañuy jëlee kaw rek parce que lu nekk da nga koy xool ci sa bopp waaw bu nekkoon ñun la tamit moom noonu lay mel lu nekk da koy xool ci li nga xam ni maanaam da koy testé si yow quoi. parce que instant bi nii liñ li ay waajuram di dund wala li famille di dund métti na lool lool métti na trop saa ñàkk dafa metti yàlla boo ñàkk yow ci sa bopp da xam ne lii nii dafa métti euh, di leen wax nag ñu muñ te xam ne ndogal yàlla la ñun ñi ñun ñi ñëpp ku ne sa bis dina ñëw tu vois ku nekk sa bis dina ñëw donc def lu baax rek moo am solo tu vois di ko wax yëpp. yan kàddu ngay tàggatoo Sénégalais yi parce que xam naa ni euh, ñàkk un frère dafa dafa metti te ni ngay waxee ak man nii maa ngi sentir ci say bët ni que euh, que euh, wax dëgg yàlla Momo dafa nekkoon koo xamante ni ku cher la ci yéen man day wax dëgg yàlla mosuma ko gisaan ah, mosuñu mosuñu bokk plateau de tournage mais keroog ci guddi bi ñu ma keroog ci ngoon ñu ma annoncé ni carrément Momo génn na àdduna man ci guddi googu barke Cheikhouna Ahmadou Bamba mënu ma woon a nelaw parce que ni ma gisee vidéo yi mu doon joué bu ma koy xoolaat mel ni sama jëmm ji laa gis ci moom euh, donc loolu dafa dafa metti waaw c'est trop dur surtout koo xam ne bokk ngeen ay projet bokk ngeen bokk ngeen même laal bu ngeen fanaan ko même bêtises yi ngeen di def voilà c'est normal mu xëy manqué la quoi c'est normal mu xëy manqué la voilà quoi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax ñu ngi koy ñaanal bu baax voilà yéen ko yéen a ko gisandoo ami téléspectateur mu doon loo xamante ni euh, nee naa la xol bu fees euh, faawu rankoñ tuuru di ñaan euh, sunu rakk ji fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee ci barke Seydina Mohamed yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam frère lan ngay lan ngay tàggatoo Sénégalais yi. waaw maa ngi nuyu Sénégalais yëpp Sénégal Buzz 221 ñu ngi leen di bëggee gis nañ seen liggéey gis nañ seen taxawaay voilà rafet na yéen a ngi ñuy indil information yi à temps di bëggee ñëpp waaw di jaale waa famille waaw di leen masaw bu baax di jaale tout la famille Virginie ak Marodi maa ngi ni di ñoom ñëpp parce que ñun ñëpp a perte quoi tu maa ngi bëggee euh, tous les sénégalais di bëggee ñëpp. merci beaucoup gaynde jaajëf. c'est bon merci beaucoup amis téléspectateurs yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi nii la bés bu nekk ñun euh, dañuy fexe xool li nga xamante ni moo gën ci réew mi ñu koy génnee di ko wane ndax acteurs yi ñun ñëpp benn lañ tey maa nekk présentateur bi mais suba mën ngeen ma gis ci kanamu caméra yi ma daal di jouer comme c'est une famille donc yàlla yàlla def jàmm di ñaanal kilifa diine yi yàlla leen yàlla defal jàmm guddal seenu fan wéral seeni cër ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup